Occident. muy tubaab yi loolu kay leer na moo tax ma ne la yow il faut ñu safar yow dañuy def spécial safar. Ah. mais comme euh, ci wax dëgg la ñu nekk war a ñëw tam si actualité bi. nañ def actualité bi waaw ñu ci actualité bi ah, rek. parce euh, lu jëm si euh, ñoo lànk ci nga bokk. di plateforme boo xam ne dañoo nekk ay mouvement citoyen yu ci bokk. amaloon marche bu ñu prévoir woon démb mais préfet bu Dakar tere leen ko yan motif leen avancé. waaw xam nga tey jii. Mhm. Mourtala Seck. Euh, moom mooy coordonateur waaw. Mhm. moom moo yore Mourtala te xam nga Mourtala moom mhm. liggéeykat la. Mhm. léegi nag boo waxee Mourtala. wax na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci coordination bi. ñu nekkoon ci coordination bi mooy ñoom Aliou Sané. Mm, bu Y'en a waaw waaw ñooñu tamit joué nañ ci rôle bu mag. Guy Marius Sagna. ah ñëpp xam nañ ne joué ne ci rôle bu mag. ba ñëpp respecté ko. kon li nga xam ne moom moo indi mouvement yu mel noonu. mooy dañoo dem ba centrale syndicale yi. ma dem ba soog monsieur Guiro Cheikh Diop. ak yéen ñëpp yeneen may dégg de dañoo dem ba centrale syndicale yi. dafa mel ne dañoo lajji. ndaxte liy centrale yi waroon a défendre. buñ jëlee léegi suufu nit. doo dégg central bu ñu jëlee yokk prix yi doo leen dégg kon li am tey jii mooy société civile bi ñi fi nekkoon ñu naan société civile muy ñoom mi camarade ay ñoom Alioune ay ñoom Gassama ñoom ñii ñii ñi ñoom dañuy tay rek c'est-à-dire que loo xam ne moom la États-Unis moom la euh, ONU wax déclaration des droits de l'homme eh oh coulant parce que ñooñu suñ jëmale mbir yi seen àddina fii la yem franc-maçonnerie mm. fii yem ñoom fii yem mm. waaye ñun ñii ANSD moo ko wax de ANSD moom moo def gëstoom mm-hmm. ANSD euh, barabu gëstu la mm-hmm. ñoom ñoo boo di ñëwee Sénégal lu mat quatre quinze pour cent mm-hmm. ay jullit lañ lu mat cinq pour cent mmh. ay catholique lañ mmh. mais sax lu mat xaw ma un pour cent xaw mmh. euh, ay sunu maam yi lañu gëm léegi loolu lan la tekki loolu dafa tekki ne ñun dañoo boole tey ak ëllëg maanaam dañuy fàttali ku démb di sedd ëllëg loo def fii tey jii ëllëg da ko layoo faman yaxmal misqaala daratin xayran yara waaw mais faman yaxmal misqaala daratin charran yara loo def tey jii mhm. muy dëgg ëllëg dañ ci bénéficier léegi ñoo lank xanaa ñi nga cité nii comme ay Guy Marius Sagna Y'en a marre dañ cee teggi tànk wala déedéet tegguñ ci tànk ñu ngi ci ba tey dañuy def seen liggéey d'ailleurs manifestation bi ñuy wax ni frappe mhm. woote woon ko ñoom Y'en a ñoom ñëpp woote woon nañu ñu dem ci manifestation bi kon ñoo lànk ay jeunes yoo xam ne dañu ne gannaaw ba syndicat yi dañu ne nit mel ne xaw ma leen dal gannaaw ba parti politique yi du ñu wax lu dul ay élection ñoom ñëpp nag muy muy PDS ak ay ñoom du mënumaa tudd ñëpp mm-hmm. ñoom ñëpp politique rek la ñuy def ay commission nationale ak ay commission politique ñoom dañu ne ñii mënuñu leen xaar mënuñu xaar politiciens yi wala politiciens yi comme ni ko Y'en maar marre di waxee mënuñu leen xaar mënuñu xaar syndicalistes yi loolu moom moo indi mouvement bi ñuy wax ñoo lànk mm-hmm. léegi yaa ngi fàttaliku mm-hmm. mais loolu 2016 dañ ko sosoon ci ah. référendum bi voilà ñoo lànk kon mm-hmm. tey jii li am mooy réew mi dafa war a seetaat boppam ndaxte bu ñu demee ba centrale syndicale yi defatuñ seen liggéey. Mhm. politiciens yi bu ñu demee ba. société civile politiciens yi defatuñ seen liggéey. Mhm. bu ñu demee ba société civile tey jii ñenn ñi ay affaire ay LGBT lañ lay wax. Mhm. ay genre ay kenn xamul ay. démocratie ay voilà kon. kon dëkk bi dafa jot nit ñi seet li nga xam ne moom. la fi maam yi bàyyi. Mhm. ak li nga xam ne moom la ñëw jóge bitim réew. waaw mais ci kaw ñoo lànk boobu. ñi nga cité ñooñu ci organisation marche bi préfet yi gàntal. man gisuma leen ci. Euh, lan moo ko waral. non xam nga. à part euh, le jeune Pape Abdoulaye Touré moom tam je pense FRAPP la bokk. non c'est-à-dire que euh, waa FRAPP. Mhm. ak ñoom ñëpp woote nañu. pour mhm. nit ñi ñëw ci manifestation bi. kon manifestation bi moo amul waaye bu amoon ñëpp ñoo xam ne joxe wan nañ seen kàddu même centrale syndicale yi parce que man maa ànd ak euh, délégation ñu dem seeti INSAS dafa doon ñëw ñu dem seeti ñoom Cheikh Diop CNTS FC ñu dem seeti CNTLS c'est-à-dire ñoom Dambod ak seen euh, dirigeants yi ñoom monsieur kon yi ñu gis ñëpp dañ naroon ñu participer waaye nag gaañ yi. interdire nañ manifestation moo di giro. Euh, waaw kooku euh, ñëpp ñoom. xam nga euh, c'est-à-dire que temps bi dafa gàttoon. Mhm. ñooñu ñëpp informé nañ leen. ñooñu da ñoom d'ailleurs centrale syndicale yi dañu waroon def seen daje. Mhm. finalement seen daje bi dañ ko repousser. kon daal gannaaw ba dañoo. parti politique yi nag demoon ngeen gis leen. non ñun euh, appel bi nga xam ne moom la ñoo lànk lancé mhm. euh, sénégalais fu mën ci nekk rek parce que bu ñuy jënd jën mu yokk lool mhm. wala soble mhm. wala suukar yépp bu boo nekkee APR mënoo dem ni APR laa rek ñu wàññil la déedéet kon dëkk bi yëpp li nga xam ne nag dëkk bi yëpp ko àndandoo mm-hmm. di ko gis war koo seet mm-hmm. mais loolu xam nga ne moo tax ñoo lànk depuis temps wu ñoom Y'en ak temps wu ñoom FRAPP ak ñëpp ak ñoom Guy Marius Seck ñëpp ba léegi ci Mourtala ñoo lànk ñun moom lañuy ñuy wooyee société civile organique société civile organique mooy loo xam ne mbaaxu réew mi la yore mais bokkul ak M23 xanaa parce que M23 tam ñëpp xam nañ ne rassemblement bu mag la. ah ñun de M23. Mm-hmm. liñ ci liggéey euh, am na de. Mm-hmm. waaye li am mooy bi ñuy def fekk ba dem mooy. Mm-hmm. ñoom Idrissa Seck. ñoom Moustapha Niass. ñëpp ñu woo leen def leen ay photo ah man envoyé nañ ma. papier li ma professeur yow membre fondateur nga léegi il faut nga ñëw ci euh, manifestation bi mhm. ma ne de ilaha illallah mhm. boo jëlee photo nga def ci affiche u Idrissa Seck mhm. Mburok Sow mais Mburok soow léegi bëgg nga Mburok Sow nga ne mooy M23 loolu bon nga def erreur bu mag boo jëlee ñi nga xam ne ñoom ñoo tax professeur bind où va la république tey Sénégal fu mu jógee. waaw ak foo ko jëmee. Mm. maanaam je suis Charlie. je suis Charlie. kan mooy je suis Charlie. ah je suis moo jël avion. Mm. daal di gaawantu kan la France. ñun bi xamee ne. Mm. monsieur Macron saaga na yonent bi sallallahu alayhi wa saaga ñëpp. Mm-hmm. mais ñun dañu ne je suis Charlie ñëwul ci manifestation bi mais gisuñu ko ñëwul. kon je suis Charlie ak mburoog sow ak ñeneen ak ñeneen am na lu tax bu leen Macron wooyee ñu di gaawantu waaye bu seen réew ak seen gëm-gëm ak seen maam yi ak seen diine yi rek ñu daal di tàlli kon ñoo lank mm-hmm. nañ jàpp rek ne li ngay li ñuy wax ne ñëpp la fi nekkal. ñëpp la fi nekkal. waaw léegi marché bi lan moo tax préfet gàntal ko. Ah, li ñu wax. Hmm. dañu ne affaire virus bi ci la bokk. Hmm. waaw. troisième vague moo tax. Hmm. <laughs> waa ñoo lànk man yabaluñ ma fi de mais ñoom danañ gën a tontu. bi nga xamee ne président Macky ak ñoom Farba Ngom ak ñoom ñëpp ak ñoom Mahmoud Saleh ñu ngi wër def ay kaar feesal leen del yóbbu Fouta pour def campagne mm-hmm. waaw monsieur le préfet bi fu mu nekkoon kon même bi ñu jàppee ne <laughs> kenn waru fi defati manifestation mm-hmm. waaw préfet fu mu nekkoon kon manifestation yi bu ñëw lànk bi ñu interdire mm-hmm. ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ñëw nañu jéem a dal waaye jub comme ni ko sëñ Mountakha waxee mm-hmm. bu fi kenn tiire bal tuy bu fi kenn sànni xeer tël mm-hmm. ni bal ni pierre mm-hmm. loolu la sëñ Mountakha yónni sëriñ Bas Poroxaan mu ñëw gis opposition ak pouvoir bi yëpp ci xanaa événement mars yi waaw waaw ah rek waaw mais bu ñu bu ñu euh, ñoo lànk tamit euh, à part euh, peut-être motifu feebar bi bi préfet bi joxe est-ce que tamit